jërë ngeen jëf ñoo ngi leen nuyu ci wasaare lamb wasaare TV di leen ziar bu baax a baax bu ñu gisee toogaay bu jekk bi xam ne ndaanaan lañ seet si champion lañ seet si kii ñuy seet si nag toog moom di waxtaan ak moom muy Ndiaye Tine su mu nee Ndiaye Tine xel yi dem ci Tapha Tine su mu nee Ndiaye Tine xel yi dem ci Bawol xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu yaata waxtaan bi Ndiaye nuyu naa la waaw us ziar naa la magal la di la warmaal waaw di nuyu waa Colobane fi ma fekk sama koñ waaw di nuyu waa Bawol képp kuy bëgg Ndiaye Tine quoi nooy waa Colobane bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp waaw champion Refane yëpp champion Bawol yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax su ma nee Ndiaye Tine ñi nga xamante ne nii dañuy gis Ndiaye Tine kan mooy Ndiaye Tine. waaw Ndiaye Tine ne eh, benn xale la waaw ñëw Dakar mu béy waaram quoi mooy Ndiaye Tine. waaw. nga def euh, huit combats def sept victoire benn défaite lan moo la dugal ci làmp waaw li ma dugal ci làmb mën naa ne bëgg-bëgg la rek ak gëm-gëm waaw ak gis sama grand ni mu doxale waaw mu neex trop waaw ma gëm ne li mu lekk ci làmb war na lekk lu raw loolu waaw noonu la demee. Euh, est-ce que nekkul li li li li xew léegi li xew léegi su ma nee li xew léegi su ma nee Balla ne Gris Bordeaux ah ne Eumeu Sène ne Zos dañoo ay rakk mbër est loolu moo la dugal ci làmb. non mën nañ ne loolu joué na ji mën nañ ne am na ji mais man lamb daa doon sport boo xamante ne individuel la individuel la waaw sa gëm-gëm bopp moo lay yóbbu fa nga jëm waaw boo sa mag ñëw di la jàppal sa tànk naan la nga nii ngay fa nga jëm waaw nga ko bëree non bëree may ñëw fii quoi waaw dégg naa ci combat bu metti boo xam te ni ci jógee faju nga faju faju dafa ngi xaalis bu bëree bëri sax. non waaw waaw waaw combat metti woon trop ci. loolu mu demee woon parce que dama dégg après ñàkk nga ci xaalis bu bëri loolu mu demee woon. waaw ñàkk naa ci xaalis bu bëri parce ah, ma calculé rek la waaw. te loolu fayul ko ci rek. ma ne ko te loolu fayul ko ci. cent mille lañ ma féewte. cent mille la nga defaat ci cinq cent mille te bokkul ak li nga war a fay sëriñ yeeg yooyu. léeg-léeg defaat naa ci cinq cent mille yoo xamante ne bi ma fajoo rek sama ordonnance boobu ji dara wax fi ma tëdd sant yàlla quoi parce que ñu bu ndaw la woon ci biir làmb ji rek waa ji dama ko daan rek nga rek mooy loolu. non mooy loolu da ngay leeralal ñi xamul parce que buñ ne bëri nga ba noppi. après jóge ci faju matoon mat bu métti sax waaw dama matoon mat bu métti nga daan ko ba noppi mu màtt la. waaw waaye la demee nag. dafa mel ni yoon ñi defoon Pape Sidi lañ la def de. non dama ko daan mu mat moom mat bu métti sax. premier combat Dakar. ban ban ban ban la woon ak yaa kan la ko doon bëri. sama premier combat Dakar teel la woon quoi sumb gi bu écri Wokam euh, moom la woon toujours combat booy ñaag gargoyle la ñu la woon quoi. nga nga ñëw sa première journée nga bëree ko ci combat bu mag ci bés bu mag ci diggante Garga Mbossé ak ki nga xamante ni mooy Boy Niang nga ñëw fekk stade bi fees delloo ñu duy ko Ndiaye Tine woo cee bëree premier combat am que yomboon na. waaw yow mën nañ ne yomboon na que premier combat Dakar moom ci mbir mu ndaw da nga koy jaayante quoi da nga koy jaayante waaw da koy jaayante waaw noonu la demee ñëw gis stade bi lépp fees laa jógee xam ne man mii war na ma mën a nekk champion waaw. premier combat Dakar nga ñëw bëre doomu daan bi nga fa jógee ñibbi seetaan naat bi ambiance bi neex doomu daan lan sa xel njëkk a def que duma jëlaat komba suba suba mu bëri waaye doon lu ma neex trop xam nga boobu demee soo ko dugg si ci làmb quoi waaw mun na demee. ngi dagañ. non dama fanaan ne ba benn set <laughs> kontaan. loolu waaw. victoire nag dafa dafa neex victoire dafa neex victoire mooy loolu. nga jógee commencé contacter. di la wutal yeneen combat ñu ci lañ ay ay ñu joxoon ma turbo wu Tiwaawoon. turbo wu Tiwaawoon waaw waaw. waaw ko tegoon ñu daanoon ko jël bu gaaw waaw. jóge fa jëlaat kan. jóge fa jël Grand Manick. waaw Grand Manick moo ñu daanoon quoi. waaw. la moo tax nga teg leen ñëw Dakar teg leen deux victoires fekk koo xam te moo la jiitu ci làmb moo la raw ci làmb nga jël ko dégg nga ay jëw xam naa da nga ko dul nangu Grand Mbagnick moo mën moo mën njaayatin Grand Mbagnick mën njaayatin nga jël Grand Mbagnick ngeen boobu mën naa ne xaw ma ko parce que man boobu xaw ma ko boobu man xale laa rek newoon ci làmb ji xam ne man dama ci war a béy sama waar noonu la demee ba yàlla def li mu def ngeen ñëw ngeen man mun naa ne jour comme jour signature bi laa ko jege gisee dama gis sotoom rek mais xaw ma ko woon sax signature bi laa ko gisee après 15 jours ñu boole. waaw noonu la demee yàlla def li muy def mu am ndam sama kaw. nga ñëw ngeen bëre combat bu métti bu yàgg. nga xeex xeex boo xamante ni métti sax waaw kumba bu métti waaw ma door ko dóor yu rëy mu daan ma. <laughs> mais est am na sens nga xeex ak nit ki duma ko après mujj mu daan ma lamb moom ku daan la ñuy wax. waaw mais ku daan la ñuy wax lamb moom kenn du fàttali li doole. daan rek la waaw dóor yi moom mooy loolu quoi. amul sens amul sens. léegi nga jóge ci bi nga ci daanoo après lan la def ci yow sa carrière. waaw dama ciy jàngate lu bari dama ciy jàngate lu bëri bari parce que mun naa ne sama combat boobu moo ma yee quoi moo ma yee ci lu bëri ba ni ma doon doxee ñu bëri dama ko changé. waaw parce que dama doon ñëw rek man boo seetal sama combat ak Turbo sa astafurlah sama combat ak euh, gi sama combat ak euh, Turbo bu Tiwaawoon ñoom ñooyu yëpp dama ñëw rek. raak même sama combat boolu yëg dama ñëw rek waaye tëf tëf tëf tëf tëf mujjee ma dem sama yoon. lan la danga jàng xeex wala da nga ñëw. wala dafa nekk loo xamante ne da nga koo mën. non dama koo mën bu nekk bool gu mënul wax amul fenn parce ñun jaal bi ñu yaroo foofu la ñu ne di sàmm ah, lu nañu dugg xeex de kéwél day ñëw taxaw xool lu gis ko dafa raak yow kéwél di champion kéwél fi la ñëw dem fee tëngeej xaw ma bàññi bëréwul xeexul naan ay bawol bawol moo xam ne des fois day dig da lay dikkee nu ne des fois yaa ma gën a xam da ngay ñëw boo comprendre quoi mais booy bawol yi amul ku leen daxa xeex bu dee raag raj ñoom la def nga jóge fa defaat parcours teglawaat ay victoire teglawaat ay victoire jóge fa am ki nga xamante ni ni mooy booy tëngëj ba combat bu metti ba te yàgg waaw waaw kale nudul arobas arobas champion boobu dana doon xaalal yoon jox la arobas parce que su ma juumul da nga ñëw si mee ko ñëpp ne njaaytin moo mën arobas njaaytin moo ëpp arobas mais nga ñëw combat bi difficile métti métti boo xamante ni nii après sax dafa mujjee jaaxal ñu bari question xalal yoon sax parce que boobu man mun naa ne xaw ma ko xam nga ku ñu xalal yoon moom da xam kii ki ngay bëreel mais man mun naa kooku xaw ko jour boobu laa ko mos a gis moom jour combat bi laa ko mos a gis ñu ñëw teg lu métti métti métti combat bu métti année boobu mun naa ne combat boobu moo ci gën a métti parce di ñoo xeex bëre ba waaye ay vingt cinq minutes ci laa a boo bëggee boo boo jàppee mu def. kal la lu ne bu ne kal bu ne door na ko façon kal bu ne def na ko caxabal waay. mais la moo tax Ndiaye Tine suy bëgg suy bëree di bëgg di maye bàyyi mbër yeek fu sooy mu doog a bëri. ba ba ñi nga xamante ni ñoo ñoo àndoon ak yow mujj gi dañu ñëpp a jóg la Ndiaye ndànk Ndiaye ndànk Ndiaye ndànk lan la. non du question maye du question xam nga mbër mbër moom di nga ak foo xamante ne nii mooy loolu quoi. du question maye des fois gars yi dañu lay ak foo xamante nii bu fekkee doonoo champion dëgg mbaa nga mën a bërë i doo ci genn gën a a daan xam ne waaw ma dem indi dëgg ci la nam ngeen bëri lu mu mujjee dem ba vidéo jeexal nga daan ko jël bu rëy waaw mën nañ ne combat boobu entraînement rek moo ma ci gën a waaw mën naa ne entraînement rek moo ma ci gën a di profité di nuyu sama course yi ñoom mbay ndawaan Ablaye Gueye ak sama coach su Boña waaw mën naa ne entraînement rek moo ma gën a ci combat boobu parce que dama ñëw ñu déggoo parce que jour boobu damaa jóge ci défaite war a ñëwee neneen ne tey ji moom lu mu mën xew ndam rek ay am bu soobee yàlla waaw loolu laa andiwaale woon ci làmb ji quoi ak entraînement bu doy waaw keroog moo amul woon lu day nag damay waaw. lu jógee fa amaat euh, beneen combat problème ñëw ñëw euh, Albury. ñëw di ko fournir ma defal ko bagage meloon gëm. est nga jógee ci écurie daan keneen ñëwaat ñu joxaat la koo xamante ne ci même tur bi la moom. waaw yow ci parce que moom boo xoolee sama combat boobu it même combat boobu presque dafa métti combat bu moom parce que moom bëggul daan daa xamul lu mu bëgg bëggul ma eh, dugg seen écurie gën fa dugaat fa. dugaat fa waaw noonu la demee nag. nga dugaat fa amaan fa ma dugaat fa amaat fa ndam waaw da koy jaral lu ne waaw di profité di leen nuyu ay champion la ñu bu baax a baax a baax xam naa leen bu baax waaw na leen gaa yi jël ay sampion ngi noonu ñaar ñooñu waaw ñu jóge ci loolu booba ak léegi déggaatuñ sa combat saison bi tëj na fi ba tëjuwaat fi ba saison bi tëj na fi ba tëjuwaat fi yaa naa ba di fi waaj tëjuwaat boobu ba léegi déggaatuñ sa combat lan moo tax affaire xaw a yéex non sama combat gars yaa ngi ji rek man ñu moom war a bëreel ñoo bëriwul ak mais gars yaa ngi ñu ngi taamu ci làmb est-ce que loolu moo neex affaire bi question taamu de man taamu ma de taamu ma adversaire yi ñoo si yoo xamante nii war nañoo bëre ma ak ñoom waaw ñu la man boobu ma yóotu fenn boobu ma dem di bëre ay pas yoo xamante nii mooy loolu quoi loolu la lamb ji lam da nga war lamb ji lamb ji amul ay pas parce que ah, quarante cinq ans quarante cinq ans ñu bàyyi bëre lamb ji amul ay pas xale yaa ngi ci suuf xale yi war a bëre ñu ci suuf toog ñooñ ñooñ léegi ñooñ ñooy bàyyi paay paay daal xam nañu seen bopp. <laughs> gannaaw ñëwoo tudd paay léegi ñan ñooy xale yi nga xamante ni nii ay grand frère mooy loolu. léegi ñan mooy xale yi nga xamante ni Ndiaye Tine war naa jëflante ak ñoom te jàpp na bu jëflante ak ñoom dina jëflante ak ñoom combat boo xam te bu neex lay nekk. waaw jaatu yoof jaatu yoof baax na saaf laa wér boobu moo lamb ju yomb jaatu yoof mu ngi fi koy seet gën a saat war nañu mën a bëre laay goote mu ngi fi euh, ak kan Mbaye Guèye Junior même neex na ak ñeneen ak ñeneen ah Ndiaye bare na pour ñu pare pour Ndiaye. mais man dama gisoon dama gisoon ay boo yoo xamante ni yow ak ñoom da doon nekk combat bu neex. yow Pape Thiam euh, nga xamante ni nii mooy euh, Jackson. ah laay gote ak yéen loolu ku ko tëggoon tournant sax beneen affaire lay nekk. waaye ñooñu ñëpp sa waay mooy loolu ñooñu pare wuñ pour bëre ak Ndiaye koo ci ne amul ci wowul ne la sa combat ak Ndiaye taxaw na muy Jackson muy Pape Thiam ñooñu ñëpp. ñun ñëpp woo nañ ma woo nañ mais ñaañu sax am nañ combat kii di Pape am na combat gi am na mais sa diggante yow ak ak ak ak ak ak euh, nu sax booy Thiès bi laay gote lan la la ah <laughs> kooku wax rek lay def avancé ko ne Ndiaye Tine laay gote mën a la combat la Thiès lay toog di wax rek kooku moom mooy loolu day wax rek dafa fi dara bu bëri bëgg fee rëy ak wax ju bari ko wax mu naan ay du ma moom ak yu kenn xamul li muy def la war a bàyyi. gars yi seet nañ ko mille fois mu naan noo bëri njaari noo bëri njaari. na jël nekkul da laa tamit. xeeb lu mu may xeebee. ëpp doole ëpp ma waaye nga xeeb ah. mooy loolu kooku na jël xaa na jël combat bi ñu bëri. ngeen bëree bu ñu bëriwul fii di bu ñu. mais mais gis beneen booy bu nekk parcelle muy aara booy bawal. sa diggante ak moom combat bu neex la. aara booy bawal combat la maag moom mais moom daa am fu ñuy daje quoi xam nga rek mooy loolu. fi ngeen daje da bokk sëriñ wala da ngeen bokk fi ngeen i. ay la quoi daa am fu ñuy daje quoi. mais mooy loolu bu ñu waree bëri rek dañu bëri maag moom ah, lam dàq ko maag moom waaw ah. combat bu neex yaa caatu yaa nag daa daan sama grand Zal Bambey waaw di profité di gon nga duy stade ba mu fees aada booy doy na waar hmm, waaw mais yàlla baax na su ma nee su àndee caatu yaa nag caatu yaraax waaw ba léegi ay lamb la rek caatu yaraax mooy loolu mais lamb la mais euh, mooy loolu quoi waaw bu ma waaw nañ ma xoolal gërëm man ci ponkol yi laa soxla. dama bëgg a defanteeg gars yi waaw. ci lim na fi léegi Mbaye Guèye Junior. waaw Mbaye Guèye Junior kay baax na Mbaye Guèye Junior baax na Thiatou Yoff baax na Boy Seye bu Kër Massar baax na Jokal baax na. quatre combats yooyu yëpp ku ñu ma jënd seen xaalis ma lekk ko. sànq ma maa ngi lay ngay lim di lim ay les deux lim les deux moom bu ko fi sax tudd ndax xam naa ne kooku moom boo futee dañ naan non booy bi léegi dafa dafa yëg boppam dafa fuuy. non les deux grand frère la. dañuy may sans talal ñu rek. waaw. Hmm. lu àndoon avance les deux nga jël. yàlla kon ma jël ko. waaye lu ma ji ragal ah jot dama koy daan. léegi ñu ñëw ci combat bi nga xamante ni muy sama muy Tapha Tine Tapha ku ne xam na ne dafa def grand contre petit nangu na ci ñi nga xamante ni nangu na jël def grand contre mu jël xale boo xamante ni nag xale la te ndaanaan la te ku ñu jara bàyyi xel la muy muy muy Boy Niang dafa dugg coup de grand fekk xayu mag yëpp taxaw bi mbote bi dugg see yëpp la yëngal est-ce que nekk na combat boo xamante ni combat bu naka ngeen koy préparé waaw ni ñu koy préparé comme ni ñu doon préparé suñu combat yi fi jaar rek parce que lam jooju moom mënta rëy a rëy rëy boo xam nga ne la ci la ci Boy Niang Boy Niang combat boobu mu bëri doyul waaw lu mu waajal doyul waaw ñu a baax a baax di ñaanal grand ko ci jàmm defal ko ci ndam rëy a rëy rëy loolu rek laa koy ñaanal ñu ngi ciy bu baax. yàlla na yàlla suturaal ji. ñeena di ci nu fondeem la te ku ñëw dina la tànkal kaas jox la nga naan. waaw waaw baax ñu koy saagaande kooku du am dara. leer laa la wax. loolu nga yaakaar dara. te li boo ñaa boo ñaa làmbam bëri na calculé. waaw na calcul la ñun amuñu leen loo xamante ne dañu ko calcul ci boo ñaa amul leen lu ñuy calcul ci moom waaw. amul leen lu ñuy xalaat ci moom. doom ndeyam de daa ñëwoon ci yéen daan leen. waaw doom ndeyam na mu na mu demee ñëpp xam nañu na mu demee lam di moom sa waay. nu demee loolu na mu demee ñëpp xam na ko. Ama Baldé daw cokkaas la jël sa tànk dëj la nga toog nga ne ni mu demee. sa waay looloo fi jiyee. jeex na fi yooyu doodu amati. gaa am nañu problème na. leer léegi nag bawol bawol nag ñoom ñëpp dañoo booloo fi mu toll nii. di profité di leen nuyu di nuyu bawol bawol yëpp. leen wax ne lamb ji daal seen lamb la combat bi seen combat waaw di wax ñoom ñëpp nañu takku ànd doonu benn waaw ñaanalante. te xam ne bu ñu àndee kenn mënu leen parce que lamb ji daanaka ñoom ñoo nekk ci lamb ji. lam ji bu ñu nee lam rek bawol la du leneen waaw di leen wax ñoom ñëpp ñu profité waaj ànd ñëw ñu liggéey bu ñu àndee rek bu soobee roi bi di ko bawol ci kattan. sama sama cameraman bu muy signal nee na temps bi na soo amoon kàddu yu mujj loo loo looy tàggatoo ak loo ñu. li may tàggatoo li may tàggatoo di nuyu waa bawol rek waaw di nuyu waa Colobane sama koñ di bëggee waa sama ànd jàmm yi sama dëkkandoo yi. ñoom ñëpp maa leen di ziyaare bu baax waaw ñoom Ibou Faas Mor Baye Diouf gars yëpp waaw maa leen di ziyaare bu baax a baax ñoom Binta Sakho Abdou Sakho nuyu mbëri Colobane yëpp ñoom Tonnerre Thiaw Star gars yëpp Mor Kanga yëpp daal di leen ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di leen wax ne gars yi dañ jëlante daal waaw nañ jëlante bu baax ñu ñu defante ñooy mayante xaalis waaw noonu la demee dafa mel ni dafa mel dafa am loo ci bëgg a sànni da ñëwal. waaw ewu eh ziar naa la di nuyu waa Saare Lamb képp ku tëgg Ndiaye Tine promoteur yi ma wax adversaire yi ma wax. Mhm. pare naa pour dox ñaari sponsor muy Fallou Ndiaye ya daal yi ren si ñëpp ah <laughs> mais nag ak adversaire yi ma waxaal de kàddu yi ñu lim képp ku tëgg sama numéro yor nga ko jox ko bu ñëwee jox ko ñaari sponsor ñaari sponsor yu taxawal lamb yi taxawal lamb yi bu ñu waxtaanee ba jubóo ci adversaire yi ma wax kat naan la jox deux sponsor daal di mën sponsor yi sama numéro yaa ko gis ngeen noonu lay demee ci Wassare Lamb lépp fi lay xewee di leen wax na nag maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp Anta maa ngi la nuyu bu baax a baax di la wax happy birthday to you ah di la ñaanal gudd fan wér gis naa fi mu ma jàppee ma jàppee nu ko yow laa la yow sama nit nga la ñaanal gudd fan nag li ci kanam yow li bët maa ngi lay nuyu ba Wassare Lamb di la wax ne happy birthday to you waaw daam non day ñëw daam ñëwal di la wax ji li xam nga ma xam yow duma la ñaanal da gudd fan rek laa lay ñaanal gudd fan dong laa lay ñaanal ak wér daam. daam daam temps yi ni daam kaay nii ci daam daam ma ni may lire sama information. lamb xam nga man lamb laam. waaw waaw waaw di profité di nuyu Sénégal. bàyyi ma di nuyu si nga xam nga si lamb du la muy wasaare lamb. di nuyu champion Ndiaye Tine. cat ba cat képp kuy tag ngem maa ngi lay ziar. di am mbégte toujours di dundal lamb. non bis non dafay soo sëb biceps yi mooy loolu ab avant jàpp ko la sens biceps yi yaa gën a xam def ay science dix mooy loolu noonu bëggaa tegal ma combat rek yaa gën a xam lamb ji suñu yi ko bëgg suñu tool yi Balla Gaye ah comme ko Bombardier man a moom mbokk feeñ a fa ay doom bàjjen lañ mm-hmm. damay mujjee jël Balla Gaye rek parce que man sans mais doo moom doo nga fi amagul combat mais bu ko laajee ñu parce que kii la ñuy bañ dañuy def année balance parce que ay champion lañ duñu liggéey ba pare di yàq ma ne ko Gris Bordeaux combat bu taxee ñu jël ko bëre incha allah. may may ma tuus bi. may ma tuus bi. teg teg teg teg teg teg teg teg gërëm ñëpp bàyyi ma kenn cat ba cat. di ziar grand Tafatine bu Mbour. chaque jour añu toog di waxtaan ci saa bopp grand Tafatine meen mu mag ma Tafatine bu Mbour di ko nuyu bu baax. waaw di ñaan yàlla combat bi mu jàmm ak salaam ah loolu la ñuy ñaan di nuyu ñëpp bàyyi ñu kenn jaajëf wasaara làmb fii la affaire bi di xewee liggéey jaajëf kàggu kontaan naa bu baax a baax jaajëf